te nga nar a changer sa date de naissance wala yow papa te nga juddoo si gileem nàmpa si mbaam xuug wala yow papa say fani dee dafa taxaw wala yow papa léegi ke keefere nga papa lan moo la dal papa lu musul am si xeet bi papa nga commencé di ko def euh, hmm. euh, bu bul ma jaaxal quoi. parce que lan moo xew ba tax man sama date de naissance ma war ko changer wala ma nekk kéefar wala may waaj a dee. Eh, bu ma def loraas bu ma looree bu ma def loraas kam nga man kam naa andi. kan man waaw. Euh, papa yow tabaski bi kañ la euh, émission tabaski bi kañ la lay wàcc ba nga mën a nekkaat ci yeneen étape parce que depuis ba tabaski bi ñëwee ba léegi papa un papa deux lii nee naa la man loolu dinaa la ko wàcceel. nee naa la man maa ngi ci eu laa jotagul papa xam nga li eu wax lu raw tabaski moo ñëw fii papa yow kaalisu sa tante ndeyee njaay bi nga sàcc ci kaw kaalisu ndeyee njaay bi anamu waaw waaw cin fukkul bunul yàq nekkul foofu papa yow mi ma jur yaa si ne taxaw fii di ma jiiñ ay affaire de sàcc yow man mi na jur maa wax yaaku yéeg si kaw fekk kaalisu ndeyee njaay nga sàcc ko man papa tal naa leneen lu dul dem di jël àllu jàmbur yaraw ma ci sàcc màggeewu ma ci sàcc du ma dem ba toll nii di sàcc ban intérêt la ma amal man tal naa leneen am mais papa nag. papa nag pour te dire vrai man talul ma jël lu jàmbur tal naa leneen lu dul sàcc alalu jàmbur. papa ban intérêt la am man da nga maa yore sàcc da nga maa xamee sàcc man xaalis kan laay sàcc. hey papa. papa xoolal xoolal. wuy ma papa eh bu ma yëngal. eh bu ma yëngal de. bu ma yëngal de. bugguma wax dee. bul ma tooñ. waaw jox naa la cër trop jox naa la cër trop. ma kinne hey kinne waxal moo mais jàppoo mu jël ko bàyyi leen bi. ku ko jàpp jàpp sàcc ku ko bàyyi bàyyi sàcc sama sàcc ma. waaw. génnal sama diggante xale bi. yow laa fi jox cër yow laa fi wax. mën nañ maa wax lu ne ma d'accord naa ko. bu ñu nee man maay ñam man la man d'accord naa ko man bu fekkee alal daf ma ñor. ni ko gars yi di def di ko amee man xam naa ko tey mën naa ko mais alal boo koy am na na ko am ci anam bu rafet. seedeel naa ko fii. ma mën nañu ma d'accord leen. kii affaire sàcc. non du sàcc dama ne du sàcc. tey fii doomu aadama bu ñu fi jiiñ sàcc ki la jiiñ sàcc da ngay doon rayantu suba ba ngoon te du jeex. mais comme su ma ko deful parce que sama kilifa la moo tax waxuma ko. kër gi nag yow laa fi jox cër parce que yow laa fi respecté. parce que xam nga bu baax a baax la laa jël mais dinaa wax leen ni xale yu góor yi def di am alal nu ko raw man mën naa ko def am alal mais du doon alal ju lew sama kilifa defu ko kon man du ma ko def yéeg naa ci kaw parce que sama papa fii la yor beñe ma di ko ñaan mu bañ ma bàyyi ko ba mu denc ko ci kaw ma yéeg ñam beñe bi dem sama yoon hey sama beñe yi ngay dugub bi ngay ñam papa sa beñe dugub man maa ko ñam mais alalu jàmbur soxlawuma ko comme que nee nga maa ko jël ñàkk nga eh sama xaalis li muy wax yaa ngi xotteeku du def léegi lu ñam lu ñam sama beñe si kaw. Eh. moo ko ñam xaalis bi si kaw. beñe la wax. sama yoon nekk sa beñe sama sama xaalis la ah. enveloppe bi léegi lijjanti sama beñe ak sa xaalis. Eh, sa bu lijjanti lool bàyyi sa beñe boobu nga lijjanti sama bos. ñàkk fay da ngay jaay moo ma neen xaalis bi fa fàtte mu ngi ah? bi nee na yow yaa ko koo enveloppe bi ngi nii foofu laa ko bàyyi turki jam turki jam gàcce gii de gàcce gi sang ngay yow sëlamu la te gis nga sa gàcce gii soo ci tuddul feebar ma xam ne yow doo gor maa ngi leen di bàyyi ngeen discuter yéen ñaar papa santal yàlla julli ci yonent bi xaalis feeñ na du ma dépassé de ne ko bu ma dépassé erreur la woon la man xaw ma ne woon sax fa laa ko bàyyi xam nga bu doon loolu dama ci wax li yëpp déedéet nekkul taas yow eh. am demal si douche bii nga laabu foofu. demal rek nga laabu. yow eh, boo laaboo sax ba nga jóg ma man ma laabu. walaal walaal walaal lu wax teel mu wan teel voilà douche bi mu ngi ne la boo pare nga jox ma ma ñëw suma biir bii mooy taw lii. bu ma xool yaatan yaatan gàcce day jaaw day bàyyi borom ma man gàcce day bàyyi borom jàppama man papa am na dégg papa papa am na dégg <laughs> dee leen moytu na xam naa looy romb fii dañuy naan kii dañu nag moom a xaw a tolloo mo tax ñu lay cokkaas ni nii dëgg la dëgg la ngay genn ah wa wa wa wa kon baax na ci kanam ah dama bëggoon xam tamit euh tissu yi quoi fu mu toll tissu yi mi ngi ñëw ndaxte mën na né tabaski bi li ci dess bëreetul te boobu ba tay gisuma nga wax ci affaire bi gisuma nga indi dégguma nga né diw 12 yaat diw 3 yaat ma bëggoon xam daal man fan la taxaw daal ci kii bi parce que ay soble yooyu mën nga bàyyi ba veille bi dernier virage nga jënd ko garaawul mais xam nga tussi am na période yi nga koy yóbbu tailleur bi du la respecté de de sañ na ko encaissé encaissé sa xaalis tëdd nga ñëw di laaj mu ne la pareegul te damaa bàyyi xeex ndax daaw dama xeex xeex bu métti ci atelier tailleur yi te dañ ma cee duma te ñaari duma moom xam nga rek <laughs> wóorul quoi wóorul. waaw mi ngi ñëw ma ne tissu yi mi ngi ñëw mi ngi ci yoon wi. ah mi ngi ñëw ah, mi ngi ñëw ah waaw waaw waaw rakk bi dëkk Dakar moo koy indaale wala. Dakar man samay tissu. fee laa koy commandé Dubaï ak Turquie. mu ni. kin ne looy def Dubaï ak Turquie. ñoom tissu yu baax nu Sénégal gii nu ne. yow man mi lay jox xaalis bi Sénégal laa dëkk. li ma lay jox. CFA la Sénégal yow mi ma koy jox Sénégal xew mi Sénégal la xewee looy def Turquie Dubaay ah waaye tabaski bi dafa waroon saf sàpp ak Sénégal dem ci bas mii gaaru ceer bii ci buntu gaar bi bas mu jaale tissu yu baax am qualité boo doxee xet gi di des fi nga romb lépp nickel looy def fële. xel mu bon mi désinstallé ko installé bu baax man sa xaalis ko naanu ko damaa suur démb tey soog a ñëw tissu yu baax na yaa ma jox sa xaalis saraxuma la Dubaay ak Turquie jëlee samay soo bëggee nga xaar ko soo bëggul na nga def taatu neen xam nga lan la man dooma jaay gémmin gu saf laa la wax ñii naan seen xaalis soxlawu ma ko yëpp ñooy dóorkat yi kër gi benn bàq ngeen am di lu ma fi laaj après lan may en attente rek man laay dégg xar ma naan en tànt mi ngi si yoon affaire bi nee ma en attente léegi ñu toj tey may laaj tusi nga naan ma en attente mi ngi si yoon bi Dubaay ak Turquie loo xam ne kenn xamul kañ lay ñëw te bas nekk fi di yëngal réew mi waaye demal jëndalal ma sama tusi ci bas waay